Unbelievable. salaamaaleykum mbokki commune u bambiloor Bambilor salaamaaleykum mbokki quartier Thierno Djiby Ba fii ci bambiloor maa ngi nuyu àddina bi yëpp di nuyu suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk suñu gannaaw ak waa quartier bi ak collectif des vangers bi nga xamante ne ñu ngi ànd ak tous les collectifs ci commune u pour lan pour ñi ñuy néewal doole bandi foncé yi nga xam ni ñu ngi fiy dugg di ñu jaay doole di fi terrasse guddi ak bëcëg te këyit yi ñu yor nee nañu ñoom moo gën këyit yi ñu yor ñun waa village u Bambilor liñ ci xawa jaaxal nak moy xalaat na ni nit su fekke da nga am ce titre foncier bo xamni dañ la ko jox tol ba nga xamantene ni yow koko mom don fa bay pendant 50 ans ba ñun ñu juddu fa man ñi di taxaw di wax ak yow sama imam amon fi tol Songo Gueye fi ci gannaaw xalaat na ni musuñu xalaat ne depuis 2012 lañu commencé gis ay nit di wacc fi ci terrain bi ne ñoo mom fi à part comico bi nga xamantene ablaye Wade bi mu koy jël dafa ñëwoon dédommager suñuy maam ak suñuy baay dédommagement bu baax ba ñoom ñëpp ñu sawaraat jënd ay tool fii ci biir 1975. di lancé un appel aussi ñi nga xam ne xam nañu seeni tour tur ne ñoom ñoo ne ñoo fi am ay titre benn ci titre bu ñuy wax 48 68 ñu ne Khafor Touré moo ko jiite di Segif di représentant Segif bon mus nañu toog ak moom trois fois mais bi ñu toogee ak moom ñun collectif bi ak quartier bi bi ñu toogee waxtaan ak ñoom. moom am na kaddu yu ñu waxoon kàddu yooyu nag ba mu ñu ko waxee léegi pendant trois mois mënatuñ ko gis biñ ko fi mujjee gis tout récemment dafa xamal ne moom borom tool yi la doon recenser pour waxtaan ak ñoom ñun nag mënuñu yor ay terrain nii yor ay fondement te biñ koy liggéey xalaat naa ni am na këyit yu ñu yoroon ba tax ñu def liggéey boobu nga xamante ni moo ñu may kenn ku ci nekk kër ga nga am moo xam terrain nii la nga fondement ko nga tabax ko kon donc moom it ñu ngi koy lancé woon appel ne ko bàyyi woon na fi ay kàddu yu góor kàddu yu góor yooyu nga xam ne moom la fi bàyyi woon te bi mu ko fi bàyyi ay autorité ñoo nekkoon suñu diggante ak moom ba tax mu def loolu te autorité yooyu am na ñu ci bari tey ñëw nañu ci quartier bii nga xamante ni ñu ngi ko judde quartier Thierno Djiby Ba quartier boobu nag tey ki ñu ko tuddee bi mu fiy ñëw muy xalif di Bambilor tey xalaat naa ne ànd na ak kilifa diine kilifa aada ak ñu bare bare bari ak tous les responsables ak mbooloo mu bari ñëw ci quartier bi nga xamante ni mooy quartier Thierno Djiby maire jox leen benn drapeau ñu war a def levée du drapeau fii ci quartier bi kii taxaw sama wet di sama baay di représentant wu quartier bi di chef de quartier bi tii di Ahmed Sy taxaw sama wet topp ci moom ñu booloo boole suñuy doole ànd bokk di liggéey pour collectif des voisins jëm ca kanam pour képp koo xamante ne yaa ngi fii ci commune Bambilor ñu lay néewal doole ci suuf ñu toog jàkkaarloo ak yow waxtaan ak yow ba xam yow lan mooy say ndax ñun li ñu bëgg duñ ko bëgg wala do ko bëgg maa ngi koy xamal nak mom ngañ Fall mi nga xamantene ni nii ñëwaat na am na fi 75 quinze hectares waxuñu amu ko fi de mais dañ ne na ñew ubbil ñuy buntam ñu tok ak mom waxtaan parce que fi mu dëkk ci commune Bambilor suñu mam ñoo fi dëkkoon jur fi mom kayit ga yor mom bu fekke suñuy bàyyi yoruñu ko wala mom yor na gu gën kayit gi ñu yor ñun sëti mais na ñew tok waxtaan ak ñun waye du kenn kuñ fi jox sommation du kenn kuñ fi woné la am sa impasse ngi ni lu da ngay yeewu euh, par hasard sama vice président mu ngi ni muy Cissé Ba dimanche passé comme tay dañu tok ci réunion rek ñu ne ko sa tol ñu fa duggal ay machine ñu ngay terrasser toj nañ bâtiment yi daaneel nañ mangi mais kenn mënatul saxal garabu mangi comme quartier bi ñu mën ko aar ñu mën ko protéger maa ngi gis ne ñun ñu fi nekk nañu gën a joxante waat suñuy loxo te gën a ànd ak suñuy autorité te gën a toog gën a péncoo gën a waxtaan. lan ngeen sàkku ci autorités yi nguur gi. autorités yi nguur gi li ñuy sàkk ci ñoom mooy ñu ngi lancé un appel ki nga xam ne moom moo ñu yilif yilif leen muy président Macky Sall ci nam bu rafet ci fi mu fekk Sénégal ak fi mu yóbbu Sénégal tey ñu ngi gis ne ca li des ci njeexitalam ah xamuñu kuy falu ëllëg ñu ngi gis ne président Macky Sall lam ñu waxoon 2012 peut-être que. am na fu ñu jógee sànq def fa lu mel nii mais ñooña nee nañu ba ñu toogee ak ki nga xam ni mooy suñu président de la république daf leen xamal ni moom defaru fi benn këyit kon loolu jaaxal nañu ñun ñu ngi bëgg aussi mu lancer ay alerte ci autorité yi nga xam ne am nañ compétence fii ci commune Bambilor lépp lu ñu fiy defati ñu ñëw waxtaan ak maire dëkk bi waxtaan ak chef de village bi chef de village waxtaan ak chef de quartier ñu mën a recenser borom tool yi xam parce que bañuñu projet état parce que ñun état état mooy ñun état moo ñuy defaral te la ñu wóolu moom la ñu dënk xeexuñu xulawuñu waaye dañ ne état lu muy def na jaar ci autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu recevoir ñu waxtaan ak ñu àndandoog état gunge ko ci loolu waaye bu boobaa bu kenn mel. di nuyu commune de Bambilor yëpp. di nuyu aussi au passage le maire de Bambilor monsieur Ndiagne Diop. di nuyu aussi chef du village bi. di nuyu aussi quartier bi nga xamante ne tey moom moo wala tey ndaje bi muy quartier Thierno Djibril Ousmane ñu tuddee ko Thierno Amadou Ba. Mm-hmm. Euh, ñu koy sant bu baax na Amadou moom moo présidé tey li nga xamante ne mooy cérémonie bi fi am muy levée du drapeau bi nga xamante ne tey moom lañu doon def fii ci quartier Thierno Amadou. ñu siy sant bu baax ki nga xamante ne moom mooy le maire de Bambilor monsieur Ndiagne Diop parce que yàlla dafa def tey moom moo yëkkati drapeau jox ko ki nga xamante ne tey moom lañ fi nommé chef de quartier tey moo waroon tey cérémonie bi ay ay responsable ay kilifa ñu bëri teewe ko donc ñuy sant bu baax na amadu di teg si loxoom. santé bi nga xam santé kilifa yi fa ñëw yépp ñukoy tek ci loxo Thierno amul mais aussi di lancer waale ben appel à son excellence le président de la république monsieur Macky Sall ak euh, son excellence le gouverneur de Dakar monsieur euh, l'ancien préfet de Rufisque euh, monsieur Sall diko wax ne dañu am luñu metti tay fi nga xamante ne quartier bi ñu nekk nekk tey quartier bi tay ñu nekk tay buñu démé tay ba maire de Bambilor di joxe ay drapeau di fi nommer ay chef de quartier quartier boobu am benn waaye boo xamante ne mu ngi tudd Xafoor Touré mu ñëw fi di samp ay borne di def ay levée topographie chaque jour si biir quartier bi defe naa monsieur le maire mën nañ jàpp ne àndul si loolu waa population bi àndu ci waa population de Bambilor ànduñu si waa quartier na Djibi bi nga xamante ne muy quartier bu bees ànduñu si kon loolu boo amee tey man dinañu jaaxal loolu ñu ngi dénoncé ki nga xamante ne mooy le gouverneur de Dakar ak li nga xamante ne ki nga xamante ne mooy le préfet de Rufisque lii nga xamante ne moom la xafoor Touré bëgg ay nit la fi fekk ñu dëkk tabax ay kër kase ceen jibi Ousmane ji ngay gis moo gën a tuuti si li Khafor bëgg jël tey si Bambilor te Khafor bi nga xamante ne Khafor Touré bi ñu fi defoon point de presse bu ñëw raconté ñu wax ak ñun wax ñu ay waxu gor loolu doyul ba autorité yi wax ak moom ba mu dugal benn ojo lam ñu waxoon si audio bi ak li ñu gis tey dara bokku seek la ma waxoon dem parce que tey dafa am ay collectif yu bëri yu fi judd muy collectif les voisins ak collectif sàmm sa moomeel ak yeneen collectif yu nekk ay mbéy wooye mbaam mais Xafoor Touré boobu tey moom moo ñu waxoon dina ñëw toog ak ñun fii ak 3 mois 4 mois boobaa léegi Xafoor Touré ñu ngi koy woo suñ ko woo mu ne ñu suba ëllëg gina suba am ñoo xamante ne tey ay borom tool yi nekk si suñu biir muy sàmm sa moomeel man mii maa ngi bokk si sàmm sa moomeel chaque jour ñun buñ ko demandé audience pour que ñu gisee ak Xafoor wax ak moom mu letta ñu wala mu firi ñu lan la nar parce que dafa njëkkoon def ay levée mu ne levée yi mu def baaxul nañ ko bàyyi mu def état de lieu defaat ay levée mais levée yi def na ko ba pare mais depuis lors dégguñu ko gisuñu ko xamuñu ko te chaque jour pick-up yaa ngi ñëw di def état de lieu di samp ay borne tey ñu modifier plan suba ñu sampaat feneen foo xamante ne tolluñ fi woon ñuy wax ne nag Khafor na xam ne suñu suuf si Bambilor suñu bakkeen lañ ci teg lu mu ko jaral jaral nañ lu ko ëpp te ma koy fàttali mu fàttali ko benn mbir colonel Khalifa Diop ak lancé préfet de Rufisque mu nek tay actuel gouverneur de Dakar mhm. ancien préfet de Rufisque ma koy bamtuwaat mu nek gouverneur tay actuel gouverneur de Dakar mo fi nekkoon buñu initier projet euh, projet CDC muy caisse de dépôt et de consignation biñ ko soxlé préfet def ci def liguey bu mucc ayib ak colonel Khalifa Diop kon ñu gën naa gouverneur bi nga xamante tay mo fi nekkoon bi projet yoy di am ñu xamaat Xafal Touré mi nga xamante mo ñëwaat tay muy même projet de CDC kon Xafal Touré mu ngi ñuy téye di ñu verser. waxuñu lan mooy actuellement lan la bëgg ci Bambilor defe naa nag nit ñi boo ñëwee ñu bàyyi la seen biir kër yi nga samp ay borne ñu bàyyi la seen biir tool yi nga samp ay borne la nga leen wax la ñu jàpp mais bu ñu demee nag ba gis ne yow la nga leen waxoon ak ni nga bëgg a def bokkul dañuy taxawaat ci beneen ta dañu moo tax ñu taxawaat ci beneen taxawaay pare nañ nag pour lépp tey lii quartier Thierno Amadou la mais beneen yoon incha allah dinañ ñu koy organiser ay mobilisation yoo xamante ne muy ay marche ak leneen lu raw marche dinañ ko def te actuellement pare nañ pour dénoncer li nga xamante ne moom la Khafor Touré nekk Bambilor parce que il est temps mu toog ak ñun wax ak ñun parce que ñun dawuñu ko pour moom mu ñuy daaw parce que moom moo ñëw fekk ñu suñuy biir tool suñuy biir quartier mu ne def ko bëgg a jël ñu d'accord ne mën na jël tool yi mais si principe mu indemniser borom tool yi ba ñu ñu projet parce que projet état la duñ ko dàq ñu ne na indemniser borom tool yi d'accord ne mu ne dina indemniser borom tool yi fi nga xamante ne mooy si biir dëkkuwaay mu ñëw bàyyi ñëw dëkkuwaay mais boobu ba léegi dindiwul ay bornam nangul toog ak ñun ñu koy wax nag may nañ ko dans une brève délai su toogul ak ak ñun dinañ organiser ay marche autorité bu ñu war a dem aussi dinañ ko def di sant bu baax aussi le maire de Bambilor ci bés bi nga xamante ne tey moom moo ko waral. kuy collectif baa ngay association maa nga nekk ci commune de Bambilor am lenn looy xeex dañ leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw ñu fédéré comme ñu ko defee ak waa sàmm sa moomeel ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi fiy dégg sàmm sa gox ak ñeneen ak ñeneen ñi fi nekk nañu xam ne liggéey bii liggéey pour intérêt commune Bambilor la. li ñu naan lii fee feebar buy wàll la moo am ñun ñëpp nous sommes contaminés ak ñi nga xam ne ay vautours lañ ay bandi fonciers lañ à commencer ci Xafoor Touré njañ Fall keneen ak keneen ñun c'est pas les personnes ñoo ñuy intéressé li ñu intéressé mooy ñun mooy suñu suuf nit ñu bàyyeeg suñu suuf di sant di gërëm nag monsieur le maire ak acte yi mu def nga xam ne ñëw na tey ci quartier bi ñuy wax quartier Thierno Djibi Ba ñu nekk victime mu Xafoor Touré ak Ndiagne ñu ñu fi doon lancé tey benn drapeau vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm ci action bi mu def di ko lancé message nag à que mu ñëw euh, mu mu mu invité ñu à ce ñu toog wax ko ci lan la ñuy dox ak képp ku fi collectif man képp ku fi euh, euh, nuñ koy waxati képp ku fi collectif man képp ku fi membre boo xam ne da ngay dox ci wàllum lu jëm ci affaire suuf asalaamaaleykum wa rahmatullah